أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني عيسى بك وذريتا من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يهدوني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأخوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم بهذه الأمداء وبشر بها وجميع أهبائي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين عتاب بالمملكة الأوتان باغنا سلي من الشيطان بدأت بسم الله والرحمن وبرحيم مالك الأزمان لفتى من سماته الفتاة للمصطفى سماته النساء بان لكل من له سراه أن امتداد منتقى فلا وآيات أمدا وكتب من أوى إليه ذو البرايا والزمن نبينا الماء ما كل فن anaa kama qadina mina matasan muhammadun sabani zul qidam tasuru mini dawaman qidam ahmadu ndeysaan tey ci màggal bii di sa màggalu màggalu suñu affaire bi ngeen am taxawaay bu am solo ci li nga xam tey nan ngeen eh, organisé li nga xam ne màggal ñu leen di ziar bu baax te yàlla bu wér ci bis bi nga xamante ni fekke nañ ko di ñaan suñu borom defal ñu fekke ak tal te rafetu fekkin ci barke Cheikhul Khadim bis suñ bisub maam la lépp luñ ci def rek dañ ko ca war a def def ko ci ñu ngi teeru gan nag tey woo ñëpp ñu ñëw ndogu si te xam ne fii mooy kër sëñ Abdou Bousso mu sëriñ Afe sëti sëñ Afe yëpp ak sëti sëñ Abdou Bousso yëpp ñoo ngi ñu toog kon nag ñu ngi woo ñëpp kontaan nañ bu baax nag ci dalal bi ngeen leen dalal waaw ñun te xañ na kàddu gi daf maa xaw a bett waaye ñii ñu ko àndal ñëpp suñuy rek suñuy mag ñun ñëpp ñoo bokk def jataay bi te xam ne lépp rek ci mbokk la ñu def jataay bi ñu ànd ak suñuy mbokk ak suñuy xare ak suñuy taalube def ko présentable nag soxna Ayda moo koy def ñun sët yëpp ànd ceeg moom kontaan nañ bu baax nag. Mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Elimane Mbakke moom soxna May Bousso moom suñu addu Bousso moom suñu Afia waaw tey xam ne hmm. hmm. nga waaw xam nga euh, ñun doom ñun moom dañoo doon sëti Serigne Atou Bousso euh, di sëtu waa kër Serigne Abdou ñun waa kër Serigne Abdou yi nag ñoo ànd mànkoo doon benn boole suñu euh, sun sun xam-xam boole sun xel. boole suñ doole doon benn ngir fas yéene euh, suñuy bokk suñuy am di jàmm ñu ànd ak ñoom ñun ñëpp ñu bokk nekk fii dundal bis bi ñu ko siamodu faara daan defe digaloon ko si ñaafee bus digaloon ko njaboot si ñaafee busu gi daan ko defal boppam loolu lañ bëgg dundal ci bis bi waaw bu dee wàllu organisation bi rek ñu ànd ko ñun mboolem sëtt siñadu siñadu busu yi ànd ko njabootu siñadu busu gi yëpp ak mbokki taalibe yëpp waaw ngir euh, ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Amadou Fall daan dundale ñu dundale ko noonu loolu daal moo ñu teewal moo ñu teewal fii. waaw di sant rek di sant euh, mbokk yi bu baax a baax ndax bu fekkee ne euh, da bokk ci kër woote ñëpp wuy si la. loolu sant rek nga mën a am ndax boo santee it mënoo mënoo leen a fay waaye da sant rek ndax wa in taskuru yardahu lakum waaye nag euh, la in sakkartum la azidannakum kon mbokk yëpp ñu ngi leen di sant ci teewaay bi ak ci boole seen bopp ci kër gi ndax gan gu ñëw dangay ngay wane ne man ci njaboot gi laa bokk ci kër laa bokk bu ñëwee ni ni organiser ni ñun bu ñëwee nu sax ngay organiser euh, bis bi daañu yaa yaa ñu koy gën a bëgg yaa ñu koy yaa ñu ci gën a jàmbaare te loolu day li boole ay xol mboolem mbusoobe yi lu ko demee lu ci demee ne waa Kisiñ Mbàkke bu yi waa Kisiñ Seex bu yi waa Kisiñ Masamba Faati Masamba Masamba Kani ba ci suñu Amar suñu Mbàkke Kani ñëpp fi nekk ku ci ñëw doo ci xam sax ku ci bokkut Kisiñ Aafi ñëpp rek dañuy ànd ci bis bi taxawoo ko kem ni ñu koy taxawoo loolu it ñu ngi ci sant mbokk yëpp mbokk mbàkk mbàkk yi. ak yeneen mbokk yi ñëpp rek ñu ngi leen ci sant bu baax ci taxawaay bi rafet na lool wax dëgg yàlla ànd nañ ci ànd nañ koog ñun bokk nañ koog ñun. bis bi nga xam ki nga xam moo di sëriñ Afia Bousso ngeen ñu tàbb ci benn ëtt buy kër sëriñ Abdou Bousso tey euh, boo ñu doon wax ci li nga xam moo di sët yi wala c'est-à-dire amal nañ ko tey fii nan nga ko gisee. lay siyaar bu baax euh, comme ni ko waxee rek <clears throat> bis bi moom bisu ku leen xadar la bisu màggal la bisu fàttaliku bisu ñaanal sëñ Afia Bousso euh, ndigal li nag comme niñ koy baaxoo euh, wax waxee rek muy ngi bàyyi woon ko woon ci sëñ Fallou nga xam ne moo dekkoon jërwaat sëñ Afia Bousso ba noppi wax dëgg di sëriñam di léppam joxe ndigal li ñu di ko def léegi na moo tax ñu taxawaay bii nag euh, waa kër gi am am ko ci ndax ndigal lu bàyyi ko ci sëñ Tuubaa dafa yombul te sëñ Tuubaa Fallou loolu nag moo tax ñu jël ko ko jàpp ko taxaw ko bu baax a baax baax a moom daal loolu moo waral taxawaay bii waaw ndax nit ki amoo lul sa amoo lul sa kilifa te suñu lépp kon nag amuñu leen lu bis bi moo tax ñu taxaw taxawaay bii loolu daal moom xam naa ne moo waral taxawaay bi te incha allah dañu yàlla ñu yàgg ko fekk at yu bari te saa yu ñëwee taxawaay bi gën a yokk waaye wax dëgg yàlla daal li ko fi ñëw soxal dana sedd da ba ci jokk mbokk geeg gise geeg waxtaan geeg nemmeekoot gi rek jar jar da koy da koy jar waaw kon nag loolu daal moom ñi ci sant yàlla bu baax tey ñaan suñu borom yàgg ko fekk te lépp luñ ci def rek uh, suñ dëpp ngërëmu suñu borom jërëjëf. maa ngi siyaare bu baax mboolem ñi dégg suñu kàddu. tey waaw Afia Bousso ñun ñu nekk benn ëtt muy kër Serigne Abdou Bousso tey lan nga ñu mën a wax ci organisation bu woote ay xaritam ay mbokkam am di jàll waaw euh, Baye euh, sëñ Afia Bousso da wax Murid Sadikh kooku dafa am ngërëmal Serigne Touba euh, ci njaboot gi nag foo dem ci këri doomam yi li ko dalee ci sëñ Modou Fatickane ni ba ci. Euh, ñi nga xam ne ñoo fi mu mujjoon ci doomam yi euh, ku ci mel ni Baye Thierno Bousso Assawaalo ak ñu jigéen ñëg ñoom ñëpp rek foo ci dem euh, ñu ngi koy dundale nii loolu li muy tegtal rek li mooy borom liggéey bi ay mbiram dafa barkeel ay mbiram sëriñ bi gërëm na ko njaboot gi nag ñenn ci ñoom ñoo daje fi tey di waa kër Baye Abdou Bousso ñu gën koo xam ci Baye Abdou Bousso chef village nga xam ne sëriñ Fallou bokk na ci ñi njëkk a wóolu dénk ko dénk leen Touba. Euh, macha allah sëñ Fallou gërëm ko euh, mag ñu baax ñu jamonanteel ñu gërëm ko loolu nag euh, du du du hasard faaw day jeexital ci njaboot gi bu ngeen gisee sëñ xaadim ni mu takka laxasaay gi sëñ xaadim mu mu mu soxna daba mu sëñ jaaña bu so sëñ xaadim mu sëñ alaaji bu so màgget mu sëñ abdou bu so mii tey tax ñu daje fii di fàttaliku baayam sëñ aafiya bu so Modou Sadio nga xam ne mooy nijaay lenk Serigne Fallou Mbacké mooy nijaay lenk Serigne Fallou mooy mook mook maa aw Bousso ak maam Ibrahima Bousso ñoo bokk euh, maam Mati Ñang ak euh, maam Serigne Bousso bi kon euh, yaakaar naa ni ci leeral yu tënku rek mooy tey ji mën naa ni fii ci bërëb bi bu fekkoonte ni dama naa ni lu ñuy woote mu daj kàpp la kon Sénégal gépp fi teew li tax senegal gépp di fi teew mooy kii ñuy kii ñuy kii ñuy màggalal di Sëñ Afia Mouride réew mi ñëpp la bokkal rawatina doomam ji nga xam ni nag moom itam macha allah dafa bokk réew mi yëpp muy ma muy sëñ Abdou Bousso bokk ci bokk ci ñangeen aafiya waaw bokk ci eh, njóobeen kokki Mame Matar Ndumbe bokk ci sëriñ eh, eh, Mbuso bi bokk ci maaram loolu yaakaar naa ku ko ci bokk senegal dara dootu ci des kon ñu ngi sant jëkk nag ci kàddu yi di Euh, sargal ñi fi teew ñëpp nag ci taxawaay bu rafet macha allah waaye ndogu yi gis nañu ne débordement amut loolu nag li ko waral mooy organisation bu jaar yoon ndax euh, le coordonnateur Serigne Khadim euh, macha allah bi mu jàngee ba ñëw bokk na ci yi mu gën a maîtriser mooy gestion organisation gestion communication loolu nag bu ko yoree xel la ci dal waaye mu ànd ak mbooleem njabootu kër gi yëpp. doomi baayam yi euh, doomi euh, bàjjanam yi euh, doomi nijaayam yi doomi ndeyam yi kon globalement rek l' ensemble de Kër Sëñ Abdou Bousso macha allah ñoom ñëpp daja daje nañu fi tey ci anam yu rafet kenn ku ci nekk gis nga li mu def jigéen ñi gis nga seen hôtesse yi macha allah ñu nuroole ko waaye góor ñi itam gis nga ni ñu boole seen bopp fi ne hôtesse yi li ma ci gën a neex nekkul ni rek yi bàyyi rek de mais soxna yaa ngi ci biir goro yi macha allah kon ñëpp daje nañu. Euh, kenn demul kenn toog euh, li li waral organisation bi jaar yoon loolu rek la euh, Hadj Cheikhna di gërëm bu baax a baax télévision bi kon ñu ngi wàcce suñu kàddu.